soxna si yow tamit li may seen bon la chez Obala na nga def a as des enfants yu am ñaata at. ans. Uh-huh. i kon de ils vont être contents ak dix ans waaw. ils vont être contents de sax. <laughs> donc ñoom da leen di yóbbul bon bi chez Obala. ok ok Pape félicitations. merci merci beaucoup. alors